tamit sa ànd ak Diop Sy ba Diop ak campagne yow booy dem si campagne yi da ngay mel ni da indi àll quoi day mel ni yow gars yi bu ñu da ngay yor sa téléphone yi indi àll di def sa live Facebook lu la neex mu mel ni da ngay jaay doole wala mu mel ni da nga doon wane ni Diop Sy moo fi nekk. non du la jaay doole xam nga wolof day woon ndam dafay xeeñ te gis nga booy ànd dangay ngay ànd ak koo xamante ni leer na ni boo àndee ak moom lu rus doo te vraiment je touche du bois. Diop si man du ma sa xam nga ne aw ma carte de membre CPGE man du ma partisan CPGE du ma militant CPGE man Diop si laa àndal Diop si dama ko jàppee comme papa xam nga dafa jafe yéen di ngeen ñëw koy Diop si amee élection da ngeen daan ñëw mais booy Diop si ñun ñooy toogandoo ak moom a di añ wala ñu koy téye di ko mbalak waa mais père naka affaire mu nekk mag moo xam ne mag mu ubbeeku. mag mu am yërmande si njabootam bien vrai que nag matal lépp suñu borom sax mun na ko waaye defu ko soo ma laaj njaay Diop si man du ma partisan gis nga li ma lay wax rek man du ma wax ci biir génn changé li ma wax Diop si dama toog moom di ko man papa laa la jàppee te wax jooju muy dëgg ci man ci àddina Diop lu mu mënti def ci àddina man Fall da dégg sama laaj ma wax ko ma ko wax du ma ko jëfe parce que xam la moo tax. moom moo ko wone moom moo ma jigoor googu ba tax na tamit su ma defee lu dul lool rek mu doon loo xamante nii day day day xaw a doy waar daal parce que nit munoo tey taw tey ni diw moo baax ba ñëpp moo baax te moo bon mais ñaari wax yooyu ban moo ciy dëgg copain te loolu nag moo bëri ci dëkk bi da ànd ak Paco Paco moo baax kenn gënu ko nit ku baax la nit ku yiw la suba nga am ak moom Paco problème def porte presse ngay def taxaw ci presse bi saaga ko wax ko lu ñaaw lu ne alors que pourtant ba ngeen di ànd yéen ñaar mais li ngay wax waxoo ko woon dafa am benn grand bon par anecdote dafa nekkoon ci Diop si par la suite mu jóge fa ñu tase fenn di waxtaan ci nit ñu bari ñu toog di waxtaan muy yekk Diop si ma ne ko may grand man yow yaa ma jiitu ci Diop si fekk naa la fa lu dul benn du ñaar yow ngay tagg Diop si di ànd ak moom mais wax ju rafet jooju nga doon wax démb ak tey wax ju ñaaw ji ngay wax laa bëgg nga wax ban moo ci dëgg. garab nii ximet di ma xool ma ne ko parce que da ngeen di jàpp ne di ngeen am ay rakk yu fi nekk am ay doom yu fi nekk te doom yooyu ci la ñuy roy rakk yooyu ci la ñuy roy boo leen jaaree côté rek après doon na baax nañ ciy bàyyi xel. Mm-hmm. waaw macha allah am na solo loolu mais tey tamit ba tey euh, du ma la du ñu continuer te wax ma tamit si job si ak jamono ji am na booy yu bari ginnaaw yu wax naan ah ñun de buñ sañoon sax du fi teg job si si mbéy mi fi nekkoon fi nekk. ah mais loolu seen gis-gis la am nga. ku nekk libre nga def sa commentaire mais xam naa ni Diop si day ak bu ma ko def yàlla xam na ni barke Xalifa Malick yaakaaruma ci moom fukki man gëm naa ni si bëggeel ak bëggeel du mu bëgg Tiwaawan ah problème bu mu am moo ko teg Diop si sacrifié na boppam sacrifié ay njabootam ngir Tiwaawan toog naa digg këram ñuy réunion ma wax ko fa xam nga dafa am loo xam dafa am napp yàlla moo koy def ci doomu aadama ñii yàlla da loon nattoo sàngara ñii yàlla na leen jigéen ñii yàlla na nattoo leen cigarette Diop si yàlla na ko ci waaw Diop si dëkk Rebeuss ay juróom nekk fa ay magam nekk fa ay rakkam nekk fa mu ne foo ñu ko Rebeuss ñëw Tiwaawan ni Tiwaawan laa bëgg lu mu am ñëw indi ko Tiwaawan bokkoo Tiwaawan mais sa ce que xam nga ni Diop si nekk maire Tivaouane taxul muy def Diop si dafa yàgg def Tivaouane bien avant muy soog a bëgg nekk maire dëkk bi nit ku si nekk nag am nga droit am nga droit nu mu def def sa analyse nu mu la neexee mais saaga yàkkamtee xeex la xam nga koo xamante dañ koo fal pour cinq ans defagul sax un an nga bëgg koo utal bilan da ngaa bëgg a yàq daram rek wax nga dëgg macha allah euh, kàddu yi am na solo dañuy nekk nag li nga xamante ni xëy na jamono ji moo gën a nekk actualité jamono ji waxee yow di euh, wàllu masata sàmm bi nga xamante ni doomu Tiwaawan la fan yee passé ñu gis boo xamante ni waa Tiwaawan def nañ ko yow ñu gis na loo wax fa ay mots yoo xamante ni xëy na wër na àdduna am na loo fa wax. loo xamante ni xëy na gars yi ñoo koy coow. Mm. te nag ñu bëgg nga dikk si euh, côté masata sàmm. ak it lan ngay wax si moom. li ma waxee woon démb rek moom laay wax tey xam nga wolof day wax ne fu ñuy jooy néew kenn dafa jooy buum je me dis gis nga problème mu Massata Samb bi mu doon koo régler facilement te du yegg fii mu yegg gis nga kaña dafa ni bëreet waa duur dóor ko birig mu daanu nekk ci diggante dund waa ji tiit ni ko kañ baal ma maa ngi jéggalu mu ne ko yow defoo ma dara ki ma fëxal sama kàmb ba nu def ma nii kookoo ma tooñ ndax bu bàyyi woon kaña fu mu tëdd kenn du ko laal xam nga dafa am loo xamante ni dafa sensible ci réew mi Sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ibnu Sëriñ Babacar Si ibnu Maam Cheikh Seydi Hadji Malick Si cër la boo xamante ni daf nga ko war a jox ndax taxaw digg assemblée nationale kilifa jàmbur nga yëkkati yenn wax yooyu di ko fa wax même bu doon dëgg la sax rafetul te wolof nag day wax ni lu la sa fit may sa xel war na ko mën a bañ te nit du lépp lu la sa fit may rek nga def ko man Massata li mu def d'accord ma ci dóor jigéen d'accord ma ci mais lan moo ko poussé ba mu dóor jigéen loolu mooy wax ji lan moo poussé Massata ba mu def acte boobu man Massata Samb mën naa la wax leen isa xamal Massata musuma koo fréquenté Massata daan dem assemblée nationale des fois mu indil problème sama sama sama leader mais bu ma neexoon ni non Massata du wax ci moom dara comprendre nga mais dama jàpp li ma Massata Samb doomu Tiwaawoon Tiwaawoon d'abord ak lu mën a xew Tiwaawoon d'abord Tiwaawoon dafa am fi manque mooy solidarité jeunesse Tiwaawoon bi nawetaan sax da daan jot nga génn Tiwaawoon dem di football Thiès waa Tiwaawoon ñoo leen suufle boo amee ay jours yu nu furoon am dégg mm-hmm. gis nga su solidarité dafa baax ci doomu aadama Masata dafa soxla ku ko soutenir sa doom nag wala sa rakk wala sa xarit sa nawle bu defee erreur ci diggum pénc boo koy yedd ci diggu pénc danga koy protéger ba pare soo paree ba mu génn torof torofee jeex nga woo ko mu ñu ko sëñ bi di nga def ko bu nga dalate njuum nga noonu la ñuy yeddee góor mais góor kenn du ko yedd ci pénc góor ku ko yedd ci pénc yaa ko toroxal te Masata Samb bonul Masata du bandi du tokkatu yàmba Masata mandiwul Masata jurul alalu jàmbur Masata koo xam Tiwaawan ci liggéey nga ko xamee mais bu fekkee ne Masata Samb tey wala Masata Samb bul fàttali élection législative yi ñaata ponkal ñoo nekkoon Tiwaawan Yaya Diallo nekk fi woon mhm. Diop si ma àndal nekk fi woon ah Seynabou Gaye nekk fi woon mhm. ku nekk dégg nga ci politique te pourtant Masata yorul ay fonds éleveur la ay laadum lay yàlla mhm. ci soog a door moo leen gañe ñoom ñëpp comprendre mhm. te nag ba mu demee ba mu demee ba mu demee fee assemblée nationale yàqu ko de ku nekk mën ngaa seetal di Massata Samb kaasal na waa Tiwaawan Diop si nag daan na ko def bu nu waxal di dëgg rek te yàlla tax juddu fàq jëf Diop si yàgg naa kaasal waa Tiwaawan waa Tiwaawan faluñu ko waaye nag masata da koo defee fa mu fase fa mu fa mu safee yow si bu ko neexoon ne du ma kaasa Tiwaan ndax Tiwaan faluma liste mu teewal fa Tiwaan di kaasa Tiwaan kon def na la mu war la ko war na def mais ñun nag ñi nga xamante ñun ñoo ko yónni ay doomu Tiwaan di doomu département bi ñu nit bu nekkee si problème ko ko ñoo ko yónni war nañ koo mën a taxaw loolu mooy wàllu góor góor du def sa nawle bu nekkee ci jàmm nga ñëw jige ko bu nekkee si jafe-jafe nga daw loolu du yëfi koor sawaay réew mi dafa am lu ñuy fàtte pakoo deret dafa am solo ci nit barke sëriñ Ba mi lu ko yàqu lu bëri looloo nga ci ñi war ñi faru te waru ñoo faru ñoo bu njëkkoon bu daan tànn ci dëkk dañuy xool deret xasuma kenn nag ñëpp baax na mais dafa am yenn sidit yoo xam bu nekkee ci yow billaahi barki sëriñ Babacar dala doo tax a wax lu dul dëgg Paco man dama di ceddoo à chaque fois dama koy wax samay publication Facebook sax dama ko ciy bind man je suis fier d'être ceddo tubaab bi ba mu ñu bëggee sacrifier ceddo la njëkk a araamal ni ceddo baaxul mais man ceddo laa gis nga ceddo bu njëkk bu lu musaan a wax dinaa la rey tey bu yaboo nga jënd say mètre percal teg ceddo bu gëmee gëm na bu la bawee bana la bu la jàppee jàpp na la bu la bawee bala na loolu mooy ceddo te nag ñun bu ñu bëggee gis nga nit xam nit soo ko bëggee rey boppam ay valeur am ngay njëkk dindi ñun nag danoo nangu gars yi ñëw fi taxaw wax ñu non ceddo baaxul ceddo lii ceddo laa xam ñu gëm ko ànd ci ak ñoom moo tax à chaque fois pour ñu jot ñu day yomb Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall Kajoor la nekk bokk ci dameel yi ah maam Alaaji Malick Demba War Sall Kër Baye Mass Kajoor la ah ay ceddo lañu mais tey bu njëkk mag ñu baax ku ci daani sab taalibe ceddo bay wute nga xam ne ceddo du wor mhm. mais nag réew mi léegi looloo ko yàq léegi ban message ngay lancé pour waa a ñu gën a jàppale ki nga xamante ni moom Sata Samb te gis na tamit autorité Tivaouane moom mën nañu kenn waxul te kenn du ci wax <laughs> autorité Tivaouane moom duñ ci wax parce que nag na ku la abali bët fa ko neex ngay xoolee alors yi moom duñ ci wax moom ku xaar ñu wax ci yaa ngi ci erreur mais nag daay xamal naa de politique dafay jeex de te nag Tivaouane changé na de bu gisee problème Masata bii xam ne Tivaouane léegi changé na ay jeunes yu responsable ñoo fi ne ay jeunes yu xam li nu bëgg ñoo fi ne ay jeunes yu kenn dootul takkat seen bët naa leen jaaral fii ñu fay jaar ñoo fi ne. mais lii nag nekkatul politique dañu merci beaucoup fi affaire de koñ la affaire de nawetaan la affaire masata bi affaire de nawetaan la mooy maanaam masata sàmb moom ah, man de maa ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad 31 décembre bii yàlla na ko fekk mu toogal njabootam. te nag dinañ ko taxaw ñëpp mun ko mën a taxaw du nu saaga du nu xeex du nu yàq du nu def dara ndax Tiwaawan xam nga ñu ñu lool Tiwaawan dafa am aar bu fi am dafa am loo xamante ni mooy Tiwaawan yar teggin am sutura loolu mooy Tiwaawan mais nag lépp loo xamante ni yoon may nañu ñu kaasee ko ñu xeexee ko ngir ñu bàyyi suñu doom dinañ ko def parce que nag Massata Samb kuy sa papa ma Yacine ma Yacine Samb mais kooku am nga am kenn dootu la présenté Tivaouane surtout maam ndox kan moo lay présenté di kenn du la présenté Tivaouane sa booji ñun Tivaouane xamante nañu te Tivaouane ñëpp ay mbokk lañu Tivaouane ñëpp ay mbokk lañu koo fi diw boo nee diw na mu sant diw ak diw am na lu mu bokk ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp génn ñu dem jàppale suñu doom suñu xarit suñu mag suñu rakk loolu mooy wàllu gor boo yoree jàmbar mu jëm ci xare faqasal bu ko bumax da nga koy yëkkati fubu ko ba mu set ñu ko demal noonu la demee Etienne Laye loolu am na solo bu baax a baax premier euh, parti bi mooy noo gisee si troisième mandat euh, troisième mandat bu Macky Sall bi ndax gi daf toog wala ànd kese wala àndoos te gis nañ tamit ay autorités yoo xam ne Tivaouane lañ nekk euh, d'accord nañ si loolu mais autorités yooyu ko d'accord loolu koy des fois bu koy wax yàlla xam na ni sama sama sama yaram dafay daw laaye dama gis lu bëri booy Mourou Diop jour bi oto bi di oto bi jaar ci kawam maa ngi taxaw place de l'Obélisque parce que Serigne Babacar Sy ndax moo indi troisième mandat lan mooy troisième mandat booy nguuru yàlla doomu moo dul ak noo mënti mel ci àddina xolal di nga a ACSF Dakar demal xal xusi Tiwaawan ku nekk mu ngi fa tëdd Macky Sall ko fal amoon ci moom yaakaar Alaaji Mansour Mbaye di ko woowee président de l'espoir nga la bu mu yàq wooy woowu dara jaru ko ci àddina ñi koy dugal ci tuuxu duna ay troisième mandat ñëpp duñ ko bëgg a sacrifier na xool Ablaye Wade ana ñu ko doon wax defal troisième mandat tey fu nu daw ci Macky Sall démb gis naa sama benn sœur Yaya Diallo mu def ci benn débat da ci wax fii amul ay par par mandat par durée yooyu waxuñu ko nul ne peut plus de deux mandats consécutifs nul ne peut plus de deux mandats consécutifs boo bëggee dégg ñu teggale ko ci olof maanaam kenn mënul def lu weesu ñaari mandat yu tegaloo xanaa léegi nag wàkk bu ba mais kasa alika nag loolu jeexal na wax julli fajar ñaata raaka la Macky moo ko waxoon wala waxu ko ah man soosolu ma ko mm-hmm. président de am naa ci moom respect bu mm-hmm. moom moo julli fajar ñaari raaka la mm-hmm. naa samay ñaari raaka jeex na moom moo ko wala wax léegi nag ñi nga xamante ni nii nag ñoom danoo nekk ci problème bëgg a dem ca Macky Sall làkkatu fa ngir Macky Sall fat ñu bëgg see poroxndul di défendre troisième mandat ma ne duñu caaxaan Macky ay doomu aadama danoo dee ci affaire troisième mandat bu mu nekk président kon su ma sañoon erreur bu du ci musu dugg Marième Faye Sall ku baax la ci ville le Sénégal di dimbali ay doomu aadama ah Macky ay xam nga yemul Abdoulaye Wade mën na ne Abdoulaye Wade parti am sénégalais la mais jabaram tubaab la ay doomam li mu miin tubaab Sénégal bëriwul kooku bu réew mi bu ñibbee bu demee yoonam day am jàmm mais Marième Faye Sall ku miin tam xarit miin korite gàmm miin màggal Touba ay problème troisième mandat tax bëgg a mu gën a génn dëkk bi pour lan te Marième ndar la te ku xam doomu ndar ci jàmm ak teranga nga ko xamee maa ngi koy ñaan tata Marième ci barke Seydina Mouhamad barke Alaaji Mansour mi nga yaakaar nga wax ak sunu ndijaay Macky mu bañ a dugg ci ay erreur troisième mandat parce que ñu ko ciy dugal yëpp kenn bëggu ko ci ñii di wax ñii ay Macky non dafa war a def troisième mandat seen intérêt lu jiital te bépp politicien laa bu ci am bu ci am avenir politique bu ne wax troisième mandat doo ci wax. wala ñu ne Tivaouane Issa bu ci wax kenn doo nga ci wax rek mooy sama paa bi te ragalul dara moom moom kilifa la waaw sama paa moom li jëntiwul yooyu. jaasi mbay woon na. jaasi mbay mais jaasi garaaw jaasi amul ku ne amul yu bët foo neex ngay xool jaasi Macky Sall la. Mhm. jaasi mooy Macky Macky jaasi. mais nag bu ma soñoon moom doomu Tiwaawan la. Mhm. te lépp loo xamante luy amal jàmm jaasi ma li ma neex ci moom xam mooy lan. jaasi nekk na maire Tiwaawan ba bu jóge fi ñun yëkk nañ ko lu ne ci dëkk bi jaasi mbay mi su see wax kenn lu ñaaw. yar googu moom nangul naa ko ko yar googu nag na ko continuer tey affaire troisième mandaa mu buñ see dugg. sa waay jàmm moo gën alal boo amul jàmm boo amee alal te amoo jàmm doo am foo lekkee ah sa waay réew mi fi ñu toll jeunesse bi dañoo yeewu de léegi amoon booy kaay jox la t-shirt ak 5000 nga solal ma ñu dem nga votal ma loolu amatu fi de troisième mandat booy munul ne. <laughs> macha allah laay problème bu mujj bi mooy <coughs> coow Adji Sarr Sonko bi lan nga siy la quoi. <laughs> Ah, mais comédie la booy comédie la xam yi am na benn audio bu fi génn ñuy lim ay nit. Mhm. man mënuma gëm loolu parce que mënoo gëm ni Ousmane Sonko violé wul Adji mhm. ba pare Adji waxal ñeen leen nga gëm ko mënul nekk. man mënul Adji Sarr la mu wax du gëm man man lu Adji wax man loolu sama sama sama conviction la ma ko mu bëgg bu def deux ans fan la foo ko mos a ah ñu interroger la nga ne musuma wax damaa um waa ñun ba réew lan ne sama waa ji billaahi coowal Adji Sarr moom ah xamal la war a am non lieu non dëgg la mais xam nga man mënumaa d'accord lenn yow dem nañu médecin ba nee na carrément kii soixante douze heures yii weesu seeku see góor dara ñu jaar ma ci kàddu gi virginité buñ ko dindee yàgg na génn defaat audio ni waa ji ba mu ñëwee ñun ñoo ngi dégg audio yi waa ji ba mu ñëwee yàggu fi dafa summeeku ñu maase mu wane ginnaaw nii ñu maase ko mu génn dem moom moo ko wax te parole yoo ko dégg xam naa baatu Adji Sarr la diw ak diw ak diw ñëw nañ fi def nañ ma lii ak lii ak lii li ma ci jaaree di ci wax audio yi nañ ko arrêté fu muy jëm du neex de audio yii billaay fu muy jëm du neex ku ko mën a arrêté mën cee wax na ci wax ñu arrêté audio yi parce que doomu aadama kenn du ko ñu ni tudd am na njaboot am nañ doom am nañ lépp problème Adji Sarr bi bu kenn waru ci mën a dugg Sonko Adji Sarr ñoo am problème mhm. nan ko rek dañu ko a réglé def liggéeyam comme benn Paco ak Laye Fall bu am problème mu porté ko peut ñu dem justice def liggéeyam mu jeex mais quant bu dee ba ci tudd ay nit Adji Sarr di si ay nit yu fa ñëw yu fa ñëwul mais sa waay non ñaaw na ba noppi lii dafa ñaaw mhm. ci dëkk Sénégal dëkku maam Alaaji Malick dëkku Serigne tuubaa dëkku maam Ablaye Niass. ah mais dëkku maam Alassane Laye. Mhm. mais ñaata nit ñoo fi nekk ay mag yu baax ay kilifa ah Cheikh Omar Foutiyou Tall jaar fi tey réew mi est-ce que ñun war nañoo wàcce suñu bopp wàcce suñu personnalité ba war a taxaw di wax ci affaire Adji Sarr moo diwuma def lii wala nii la ko def mais sa ñàkk kerse googu ka la dal ñun dafa mën a danoo danoo këppoo saafara jàmm Sénégal. ju sénégalais bu njëkkoon dafa am valeur sénégalais bu njëkkoon dafa amul sutura mais lii lépp nag xam nga lan moo ko waral li wolof naan dóor doom làqu doom dama leen di fàttali ay audio affaire audio nii déparé wu si ñoom Adji Sarr de waaye ay laaj Idrissa Seck Idi Souleymane Jules Diop lan la fi waxoon kilifa yi 2012 fii fi la ñu fekk mil 2011 2012 Souleymane Jules Diop lu nit wax na ko fi kilifa yi fan la mujj fenn gis nga bàyyi sunu sunu sunu sunu sunu dignité ak sunu honneur duñ ko caaxaanee waat alal fii la yem gor kenn mënu koo jënd dignité kenn mënu koo jënd sa sutura kenn munu koo dind te gis nga nit bu ñu xaawee sa sutura dese doo dara ci àddina boo demee boo waxee ñu ne ah ci dégg li mu wax dëgg du dëgg bu yóbboo nga jéem a wuti bi jeex na ba pare kenn dëkku fi waaye dañu yaakaar ne dañ fiy toog kenn du fi toog par exemple xolal nit sama papa ana papaam génn na àddina sama papa da ciy toog man dama ciy toog waaye dañu yaakaar ne fi ne éternellement te ku ñu fi éternellement de ah, dañuy dem de di yóbbu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu maam Alaaji maa yóbbu Serigne Touba du fi ba kenn ku yaakaar dina fi ba yaa ngi nax sa bopp te gis nga sa waay du waay di def doomu aadama na doon lu rafet ndax biir bàmmeel kenn du la fa fekk yàlla ñaar def ñaari biir sa biiru bopp lépp lu si jëm suñu borom moo la koy yow li ngay añee suba xamoo ko ngay reeree tey xamoo ko suñu borom moo ko nag boo fa duggee lépp loo fekk yaa ko fa yóbbu te nag gis nga damay jox misaal ñu tabaxal la kër gu bees tàq defal la ca lal bu bees tàq yóbbul la dara bu weex tàll parfum la ba nga jekk boo demee fekk fa mbóot yaa ko fa yóbbu waaye nekku fa na ñuy bàyyi xeet bàmmeel sa waaye alalu àddina jaruñu dara nit loo mën a am si àddina amee woo ko ci ngor bis boo ti bis boo tëddee di nga bëgg a nelaw mu tëla nanu am Sénégal nanu nanu nanu fexe amalante yërmande suñu biir joxe waat joxante waat respect bàyyi xeebaate da ngay nekk ci kër sax sa doole demagul noonu ña nga bokkal bi ñite moo ko gën àddina dafay jeex nit nag war ngaa mën fexe ba ëllëg sa doom fu mu romb ñu ni eh ci di diwee papa mu def lu baax ñu ni ko diw la sax da ca jëf ji bettuñu ndax sa baay nii la meloon wala sa yaay nii la meloon mais am na loo xam ne rafetul tiim gor di ko wax lu ñaaw lu ne nga ko ko ay nit jaare fi di jubilé mel ni ñu jël coupe du monde Sénégal Sénégal daal sawaay ñun ñu ngi ci lendemain yu sombre barke Seydina Muhammad c'est triste nag pour wax ko mais lendemain yu garaaw a garaaw a ñu jublu ndax lii nii di ñëw buñ ko arrêté wu buñ ko attuwul fu ñu jëm bu baax jaase na yàlla miy borom yërmande yàlla fi sotti yërmande rek mais ce sera très grave yàlla xam na ko. macha waaw li may tàggatoo mooy li may di woo mboolem jeune Tivaouane hmm. waaw ñu tase jeudi fële ci terrain préfecture à partir de 16 ñu taxaw suñu xarit suñu frère Massata Samb di si jaar di ko ñaanal nag nag bii nga xamante ne tegu na ci kawam suñu borom teggi ko sunu borom ku ko teggee yëkkati ci ay maqaamam ci barke Seydina Muhammad xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo yem benn lanu rek njaay gënul faal faal gënul jóob mbaay gënul géy géey gënul mbaay Sénégal ñun ñëpp ay nit lañu ay doomu aadama la mosoo dem ci benn bàmbeel benn armée ñu naan lii bàmbeelu géwél la wala bu njaagoo nit ñi nanu yem te rek lay nanu yem te maa ngi baalu ñëpp ak bu fekkente ne wax naa fa dara lu demewul noonu dama di nit rek yàlla sàkk ma muy jumkat lu fi baax nag suñu borom la GP ñun moom yal na yàlla sàmm leen ndax xam nga din naan doomu ñee kenn du ko ñaanal rëy da koy ñaanal gudd fan yal na yàlla defal leen sutura ak gudd fan di nuyu waa Tiwaawan yëpp di baalu àq je vous remercie